actualité bi ñu bëri ak ñii rey nañ leen ko dóor ba mu dee. Hmm. fajal sa bopp bi. Hmm. waaw fajal sa bopp moom gënul fajal sa bopp gënul lu mu metti metti euh, parce que comme ni ñu ko waxee république buy dox hmm, moo xam république laïque moo xam beneen république il faut moom ay loi justice tamit. Euh, su ñu waxee loolu day am institution judiciaire ak ñoo xam ne loolu mooy seen métier ñu koy def euh, dafa laaj ay enquête laaj ay nangam ak nangam kon réew bu silwise noonu ngay doxalee mais fajal sa bopp su amee ci réew kenn mëntu fa tudd justice te fajal sa bopp lu ne da ciy mën a dugg daal waaw kon euh, bu fekkee ni par exemple réew mi dafa wax ne ku sàcc lii lañ lay daan benn citoyen amul droit ne man dama jàpp ne ku sàcc nañ ko rey keneen mën na jàpp ni tamit kon su amee ku saaga nit euh, nañu lakk këram et cetera xam nga loolu lu muy mujj indi euh, jungle kon nag fajal sa bopp baaxul day indi tamit ay règlement de compte maa ngi fàttaliku benn cas bu amoon Cameroun euh, ndekkee waa ji dafa jàppante woon ak dëkkandóoram rek mu mu mu mu kii ko am lu mu ko jiiñ noonu gars yi lakk kër gi extra bi ñu demee ba def enquête yi gis ne rek règlement de compte rek la woon donc yooyu lay indi mën nga dox ba mu yàgg nii nga gis benn waaye bët di xonk nii rek wala jubóog moom rek nga ne kii démb moo ñëw sàcc sama kër gars yi jàpp ko dóor ko rey ko donc euh, loolu moo tax fajal sa bopp euh, rafetul ci ci ci république ci justice rafetul tam ci l'islam euh, kon lu mu metti metti bu nit sàccee nañ ko jàpp yóbbu ko ci yoon man mi participé naa fii ñu jàpp fii benn booy ñaari booy sukkër ñu nangu portable benn chinois fii temps yooyu maa ngi def footing ci piscine olympique bi ñaari boy romb rek nangu kii bi mais dama taxaw rek rek dama dama dama dama ni jàpp ñaari boy yi gars yi taxaw ci tali bi nii ñu ñëw gars yi tëy leen j'étais content boobu ñu jàpp leen yóbbu leen ci police bi fii yu mel noonu c'est très bien mais dóor ay nit ki ci mbedd mi euh, jaru ko maintenant problème mu insécurité bi tamit ñëpp a ñëpp a ci war a bokk individuellement yow sa bopp aussi na nga na nga am prudence léegi yenn heures yi boo amul soxla farata toogal sa kër mairie yi nañu gën a xalaat ci affaire Euh, sécurité bi état bi tam na ci gën a def euh, moyen ñu gën a sensibiliser nit ñi ci wàll boobu parent yi tamit aussi bien tey sa doom gis nga boo sàgganee ni nga ko war a taxawoo ni nga ko war a jàppalee ni nga war a di waxtaanee ak moom ba mu nekk bandi di reyaateeg di di sàcc euh, yaa ngi tooñ société bi mais tamit nit ñi dañuy waxtaan ci biir quartier bi problème yi am ñuy anticiper ah association yi quartier yi nañuy waxtaanee problème sécurité am na ay daayira am na association de femmes de jeune nañu gën di waxtaanee question sécurité boobu bu ko def plus ñu koy waxtaanee plus ñi nga xam ne dañu bëgg nekk di agressé ak di sàcc ak yooyu plus ñuy gis ne ambiance bi favorable pour ñoom parce que ñëpp a ngi ko def yitte di ko euh, di ko waxtaanee hmm? ñàkkum xëy bi aussi daf ciy joué que jeune boo xam ni am nga vingt ans vingt cinq amuloo soxna am nga ay soxla yoo war a euh, lijjanti. Euh, mais euh, soo deful nag nga ne xaaral ma jéem a seet loo xam nii moo gën a gàtt wala moo gën a yomb te fekk ne au contraire euh, mën na la indi problème boo xam ne du jeex du xaaj ak tamit suñu suñu culture parce que xale bi dëbb daaxee ay ngeen baal ma bi dëbb ay paaka ku jigéen kooku bu yàggul xam nga kooku train de vie xam nga kook affaire ay sama ngénteeg loolu tam suñu mentalité suñu culture tam dañu war a def suñu autocritique parce que fi mu nekk ni paraître ngistal bi te man sama yaram dafa daw parce que biñ ma nee malgré que ñu ngi ko yóbbu ci terrain pour reconstituer yaay jaa ngi def ngénte gi waaw boobu temps yaay jaa ngi ngénte boobu laa nekkoon xale bi ndeke effectivement ñii ñoo ko mettre la pression parce que yow sa doom yow jigéen bi ko jur sa doom ñu ne la jam na nit paaka ba mu faatu beneen jigéen comme yow mi yaayam ba pare police jàpp nañ ko ba yóbbu ko ci terrain bi ba mu reconnaître ci semaine boobu yow ngay ngénte pour ñu delloo la li nga joxe ak sol lu rafet ak euh, ma ne bis boobu maire boobu dana toog bis boobu di reetaan ak nit ñi mais mais mais c'est la fin du bi ma gisee loolu dama ne c'est la fin du monde ku mës a gis lu mel nii. kon nag nga xam ni kon effectivement xale bi li mu doon wax kon effectivement ay mbokkam ñenn ñi de en tout cas démontré nañ ni xaalis ak àdduna moo leen jaral lu ne waaw comme xale boobu tamit euh, train de vie ak tamit euh, mën naa def ngénte bu neex sol jesner loolu tamit Sénégal fi nekk nii actuellement boo wanewul yenn yi bokkoo. kon bu la yàlla dimbaliwul rek euh, nga dugg ci yoo xam ni euh, fu muy mujjee ak yow du du du baax loolu tam nañ ko gën a waxtaanee parent yi di ko waxtaanee ñu bàyyi ngistal bi ñu wax ne ñu nañ nekk gor di dund euh, avec à la hauteur de leur moyen propre et cetera waaw. simplicité Sénégal moom simplicité bàkkaar la fi léegi daanaka daanaka simplicité xoola ci ci ci wax ak ci colka dafa nekk nii bu fekkee ni da ngay wax li nga xam yam ci ñu xamul dara nga rëy làmmiñ di wax la neex. waajangoog ngay sol lu ne ñu ne waajangoog te fekk li nga yor dara moomuloo ko ci lépp ay tappale la loo tam nañ ko seetaan